Mhm. mais ala laal haal nañ ci jël leçon ñun ñëpp que ne jàmm bëgg. ak li mhm. suñu borom dogal mën na bañ a wutee. te mu nekkul benn xamal ne li borom bi dëgg li borom bi dogal rek mooy nekk. Mhm. lu leer nga wax alors euh, nu nu nu nu wéyal ba tey ak euh, beneen actualité bu nuy waxtaanee euh, daanaka sax bokkul woon ci ponk yi. mais mais mais mënoon see ñàkk ñëw. mooy post bi nga xam ni Omar saw def na ko dinu xamal ne day dugg xalwa <laughs> <laughs> ci wàllum politique moom post bi mi ngi nuy xamal ni euh, chers euh, amis je vous demande pardon et et je pardonne Euh, je prends du recul pour le moment dans la vie euh, politique pour des raisons personnelles. Euh, dans toute relation, je préfère la sincérité car euh, je pense l'être. À très bientôt. <laughs> <laughs> mais mais mais wax ji mooy est-ce que dégg nga lu mu wax. est-ce que dégg nga sens bu mu wax. Mhm. je demande pardon et je pardonne. Mhm. Mhm. Omar la relation bu mu mënti nekk. daf ci bëgg mu sincère ban relation la nekkoon te sincère. Omar euh, peut-être euh, relation la moom la mu ba bi mu nekkee après wala boog bi bi bi bi Macky Sall jeexalee peut-être li mu fi incarné depuis boobu ak léegi. moo sincèreul wala lam doon ànd ak Macky Sall ci boobu moo sincèreul mais li ci am solo rek. mooy ni mu yéene woon combat bi. ci bi nga xamante ne élection yi passé na ak léegi moom xamoon na bu ñëpp xamoon na wala bu ko amoon xel tuuti xamoon nga ne. Uh-huh. Euh, force dina ko dina dina dina dina wàccee bal bi. waaw parce que na ma ko yéene woon daf ci wéetoon trop tellement que. Uh-huh. Euh, da nga ko ci doon mujj yërëm sax euh, maanaam beneen bi mooy da ko doon yóbbu mel ni ku girip. xam nga des uh-huh. fois boo amee yenn sibru yi sa yaram tàng. des fois da <laughs> loolu tax gars yi di wax na seeti seeti seeti seeti ku feebar ngoon baaxul quoi mm-hmm. <laughs> xam xam nga loolu de day dégg gars yi waaw parce que nit ki bu sibiroo des fois ni ngoon gi yaram bi day tàng mm-hmm. des fois day dileeri di day dileeri di wax rek des fois mën na di wax sax ba naan euh, si la <laughs> si la wala euh, voilà euh, des fois ki gën a jege ci bëtam. day faral di ko tudd. après des fois loolu moo taxaan suñu mag ñi naan <laughs> dem mu amul quoi <laughs> parce que nit ki des fois bu yaramam di tàng après ki ko jege wala ki mujjee gis. lay nekk di tudd. moo mm-hmm. taxoon des fois ñu ne ku feebar nii maanaam baaxul di seeti di seeti di seeti di seeti ngoon wala yenn heures yi mais Omar Sow da nga sentir ne. Mm-hmm. bi nguur gi wàccee. moom euh, dafa meloon ni ku feebar ba yaram bi tàng da doon déliré maanaam affaire comédie la doon def man mm-hmm. saa bu mu defaan euh, du ma du ma du lu dul ne dinaa dem déglu entretien bi début à la fin xam nga li tax mm-hmm. pour maanaam dem ba nga xamante ni da ngay naan euh, non non Macky Sall Macky Sall Macky Sall dama di di tooñ Macky Sall Eh, maa ngi seetlu révélation yi garaaw la doon def nag. maa ngi seetlu bi muy wax bi muy wax ci affaire affaire affaire takku doomu Macky bi. Uh-huh. mu ne non Macky Sall man sax dama ko yëram ak ak éfal xam nga sa doom di takk jabar maanaam ñemewoo sax ñëw nga yaram man loolu dafa daw sa maanaam aussi <laughs> nga nga dem ba yëg ne kii uh-huh. dafa mel ni maanaam euh, li muy joxe moom ci boppam tayatu ko Mm-hmm. maanaam dëgg la bëgg na nekk ci espace bi di wax mais amatul carrément argument boo xam ne war na ko war na ci mën a avancer. lu dul ne dina dem ci euh, ay ay ay ay nettali ay rencontre euh, rencontre yoo xamante ni bu koy wax fokk yow ree la lay def affaire comédie la lay def. Mm-hmm. te fekk mu amaana lu sax lu sérieux lay doon ci moom mais li am solo. mooy recul bi mu jël nii. Mm-hmm. na ko jël ku mel ni moom ngi nekkoon ci langue di mbëlmbëli. na ko jël gis nga euh, gune dañuy wax ne picc. bu nekkee ci kaw garab bànqasu garab. lu ko neex mu wax lu ko neex mu def. waaye gis nga bis bu tàbbee ci loxoy gune bis bu tàbbee ci loxoy gune. sooy boo xool bu baax a baax la muy wax. maanaam sa cin ji la jëm. Ah, non na xool bu baax la muy def xam nga xam nga bi muy wax bi muy mbël mbël yëpp Amadou Amadou Ba mu ngi ci biti. Amadou Ba def Amadou Ba bi mu ñëwee changé couleur. am leneen am am beneen annonce boo xam ne def na ko. pourtant ñu bëri dañ doon xaar peut-être Amadou Ba ñëw euh, def réplique tuuti ci. yenn euh, sortie yi nga xamante ni amaana euh, président def na ko wala boog itam premier ministre def na ko amaana uh-huh. sax am na ci yoo acte politique la wala boog itam discours politique la yoo xam ne peut euh, bu doon keneen mën na ci def réplique wala boog uh-huh. itam bindoon ci comme ça ci postum tontu ci wala comme ça mais da nga gis ne Amadou Ba bi mu maanaam dafa umbi woon bi mu nekkee jibiti mais uh-huh. même bi mu ñëwee ak léegi daanaka discours yi nga dégg muy wax yëpp daanaka ne taxawagul moom pour opposer doon opposant radical ñoom da ngay mhm. dégg ñu naan la opposition républicain comme ça dama xamul nag dañoo jàpp ne grenade yi ñu jëndoon dafa jeex ba ñun amatuñ grenade wala mais bu dee jë grenade yi ñu jëndoon moom jeexagul nañ xam ne opposant républicain bi day teel mhm. bopp nañ ñëw opposé gatsa gatsa après bu euh, grenade bi jeexee nag bi nga xam ne ñoom ñoo commandé woon mhm. après ñu doog dem ci républicain bi mais li ma ciy wax rek mooy euh, day day day day day jàngal classe politique bi nga xamante ni ñoo fasoo woon a taxaw ci kanam opposition bi. maanaam mm-hmm. xam ne guerre de position ñoom ci lañ nekkoon ñoom dañoo jàppoon ne Amadou Ba du ñëw léegi. ñu mm-hmm. nekk fa yoo xànjuwaale ku ci nekk di xu yuuxuwaale euh, bu Ousmane waxee tey balaa moo noppi nga ne maa koy njëkk a tontu. Mm-hmm. bu Diomaye waxee tey balaa moo noppi nga koy nga ne maa koy njëkk a tontu dem ba nga xam ne yow énergie bi ngay mujj di dégager ci yow connexion bi ngay mujj dégager day métti métti ci yow. ba tax na boo defee benn live benn vidéo amaana deuxième sac dina génn doo def doo mën a defaat live troisième sac dina génn doo mën a defaat live quatrième sac génn doo mën a defaat live loolu li koy waral mooy wax ci lu jarul wax opposé mm-hmm. ci lu jarul opposé dama jàpp ne dañoo yàkkamti woon trop li nga xam ne mooy seen seen seen seen seen seen seen seen seen wàll ci ci mbir mi la ko waral it mooy euh, ñàkk cër ci mbir mi mooy mm-hmm. élection présidentielle la ñu jógee élection yooyu buñ ci jógee jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo ëpp cër pour opposer mhm. mooy ki nga xamante ni moo jiite moo topp ci ginnaaw ki nga xam ne moo di président bi gagné kooku du kenn ku dul Amadou Ba ginnaaw Amadou Ba Amadou Ba li mu rawee ci pour pourcentage ci mhm. ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam bëri na tellement façon bëri boo xam ne bu Amadou Ba nëppee ñaari weer wala ñetti weer doo ko wax jàpp naa ñooñu moom ñeenti at wala juróomi at lañ war a noppi pour doog wax ah. kon moo tax bu ma gisee ku mel ni Thierno Alassane Sall amaana moom itam di commencé ay critique am ah. xam nga ñi nga xam ne amuñ seen bopp moo tax euh, soxlawul ngay nekk di commentaire ci seen mbir bu ñu amoon tuuti tuuti tuuti ah. euh, conseil politique lañ leen di wax ne dem leen ngeen tëju seen ay erreur yi ngeen jot a def ci politique seen li ngeen ñàkk ci politique bu leen nax seen bopp wala boog itam ngeen nax seen ay nel yi sax. Hmm. fexe leen ngeen dugg seen ruqus mën a kan ngeen jàng seen bopp seen élément wu bopp seen njabootu bopp yi nga xam ne yéen a ngi leen koo dajale. Hmm. lan moo tax mën leen leen a toogloo ci seen biir. lan moo tax géey original ba nga yoroon mënoo fexe ba garder ko hmm. lan moo tax euh, caporal Fall bi nekkoon ak yow mënoo fexe ba ànd ak moom lan moo tax Abdou Sarr bi nga xam ne xamee woon nañ ko ci ci yow muy wër plateau yi di la gisatuñu ko fan la nekk ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen mais yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni au lieu que ngay génnaat ci ci ci ci ci espace public bi. Mhm. ne yaa ngi incarné benn chef de l' ci loo xam ne ci sa tur lay yem wala boog tam ci làmmañ lay nekk ak loo xam ne yaa koy imaginer sa bopp. Mhm. yooyu jàpp naa ne dafa am lu ko ëpp solo bu dee ne bëgg nga des ci làng gi di ci tekki dara. Mhm. jàpp naa ne liñ yor mooy boo passé benn épreuve am benn euh, résultat boo si jë boo si jëlee mu baax que mu bon da ngay fexe dugg ci biir nga xool li nga xam ni moo di moo di moo di moo di jafe-jafe yàlla dal nga jéem ko joyante xam nga euh, Thierno Alassane Sall bu bokk bokk na ci ñi nga xam ne erreur yi leen dal li leen ko yóbbee mooy ñàkk def euh, jàngat ci erreur boo xam ne daloon na leen uh-huh. mooy élection législative dafa ñëw ci Sénégal léegi moom Thierno Alassane Sall bokk liste ak Abdourahmane Diouf uh-huh. Euh, Thierno Thierno bokkum su ma que dama xamul ci la bokkoon wala déet uh-huh. euh, mais mais moom Abdou Abdou Abdourahmane Diouf ci la bokkoon. Uh-huh. Thierno Alassane Sall ci la bokkoon. Euh, Juste Amidou dem ci la bokkoon. Uh-huh. Théodore Monté ci la bokkoon. doon doonul ay nit yoo xam ne ay jëmm yoo xam ne profil yoo xam ne ñëpp leen nangul xam-xam. bu dee ci côté xam-xam la mais bi ñu demee élection. jàkkaarloo ak ye <laughs> ak yeewi askan bi jàkkaarloo ak eh, benn bokk yaakaar mhm. plus fort reste lañ am moo tax Thierno Alassane rek moo mujjee dem assemblée nationale mhm. léegi bi ñu génnee ci élection yi lan lañ ko layalee pour pour pour sagal seen bopp lan nga dégg ñu layalee ko mooy mhm. Ousmane Sonko moo dem en plein campagne ne bépp liste bu ngeen fi wooteel bu dul yeewi askan wi Macky Sall la ngeen di jàppale bépp liste bu fi nekk bu dul yeewi askan wi Macky Sall lay jàppale nee nañ nee nañ wax boobu na loolu Hmm. yow sa bopp xam nga bu baax a baax que ne moment bi Ousmane Sonko di wax loolu. Hmm. aar la mu doon am am na ko Yewwi la mu doon am am na ko. Hmm. mais léegi sénégalais moo bëgg. bu nekkee ci benn mbir bu amee benn échec boo xam ne def na ko ci. au lieu que mu xool li ku yóbbee de xool ku mu teg toor. ku ko buux waaw da ngay damay ànd ak yow ci course. ñuy daw ñuy course ma ak yow de wala boog itam ma yow ak benn tubaab ngeen di daw di course. tubaab bi daw daw daw daw daw daw ba mu yàgg yéen ñaar ñëpp ngeen daanu. tubaab bi tag xam nga lan lay fan lay fan lay yóbbu est-ce que démb nelaw naa nelaw yu doy. Mhm. man dafa mel ni sama sama sama sa sama doojoor bi dafa mel ni sama yax bi am lu ma ciy sentir. Mhm. mais bu dee nit ku ñuul ki du def loolu. Mhm. dafay nekk naan sama bàjjan laa dajaloon lu may xëy si. am na jigéen bu ma dajal bopp koñ bi est-ce que du moom moom. maanaam mu ngi wut moom kum teg tooram. tey <laughs> euh, la euh, askan bi ñooy dundee noonu mais nag homme politique bi ci boppam moom itam bu bëggee di raisonné noonu ci ci li xam ne moo di euh, activité politique am. dafay sax ci di naax boppam. am Bougane Gueye Dany boo mënul am parrainage soxlawul nga fi nekk di victimiser woo ko lor sa bopp ci naan. Mhm. dama doon déranger Macky Sall moo tax bàyyiwuñu ma jàll. fexeel nga jàng def la jël sa leçon tëju ci biir. sa ruqus mën a kan nga jàng xool ba xam lan moo tee nga mën a am parrainage pour mën a bokk ci yenn élection ci Sénégal boo demee nag ba am baatu nag mën a bokk ci élection ci Sénégal ba bokk ba natt sa bopp bañ xam yow lan ngay tekk ci réew mi voilà su ko defee nag di nga mën a jël place bu ñuy wax ci opposition bi wala boog itam bu ñuy lijjanti xëccoo kuy jiite opposition bi kuy dajale opposition bi après boo waxee yow dinañ ko mën a jël au sérieux analyser ko comme ni ñuy analyser mbirum Amadou Ba xam nga Amadou Ba lu tax ñu mën a lu tax bu noppi woon sax ñu mën ko ñu war ci mën a wax wala boog itam bu ñëwee ne wax mu ci politique ñu war ci mën a wax mooy dafa dem élection am loo xamante ni am na ko ci kaddu askanu Sénégal mu tolloog 34 nangam pour cent wala boog itam 30 et quelques pour cent loolu jàpp naa lu ndaw ci koo xamante ni mënul am parrainage waaye nan la fiy nekkee nag moom tëj gémmiñam ni muut ne man de gisaguma wax dëgg yàlla lu war a tax. ñu ñu ñu ñuy critiquer. Mm. mais yow moo xam ne amagoo parrainage nga ne yow sa parrainage yaa ngi ko bëgg wut yow ci régime mu jàmbur. sa parrainage yaa ngi ko war a wut dèjà ci régime mu jàmbur boo xam ne dafa toog bés jàpp naa ne euh, Omar Sow li mu def noonu. Mm. amaana moom moo joxe départ bi mais dana am ñu bëri ñoo xam ne dinañu delloowaat ginnaaw bu baax a baax baax. Mm. xam nga lu tax ci leneen mooy dana am ñoo xam ne bis bu justice bii déparé. yoon wañu jàpp na la war a jër pour delloo si waat alal ji comme ni ko euh, premier ministre waxee woon gox bi opération gox bi bis bi ñu ko démarré di nga soxla invitation ci ñu bokkoon affaire mu la da nga dina jafe lool ku toog ci plateau di wax ak yow gauche ak droite parce que gis nga rek boobu ak léegi mm-hmm. Mm-hmm. jafe na nga gis koo xamante ni ministre la woon wala boog itam koo mm-hmm. ko mu génn euh, yi nga xamante ni amuñu woon benn ndombal tànk bi. mais ministre ci jamono Macky Sall boo xamante ni gis nga ko bi ñu wàccee ak léegi muy traîner de gauche à droite. di critiquer di wax euh, euh, nañ dem fii nañ dem fale déggoo ko fi te jàpp naa doo ko dégg. loolu nag li ko li koy waral mooy xam tuuti politique wala boog am tuuti expérience politique. askan bi bu ñu tànnee seen tànneef bu toll ni bi ñu tànn ci élection présidentielle yi ñu passé da nga koy respecté. ànd mhm. ak projet boobu. surtout que bu dee koo xam ne yow jàppoon nga ne yow nitu système bi waxoo ci ak ñoom dara. Mhm. mais contrairement bi laa gis léegi démb dafa am ko ma koy tooñee man ko man li ma jaaxal. Hmm. mooy waa kër kii bi mooy ñi gars yi tooyee waa kër nangam. kër kër kii. kër kër la voilà kër kii gi kër gu kii gi bu bëgguma yegg ci kii. non boo non boo waxul duñu comprendre parce que boo nee kër kii duñu xam. non boo nee kër kii waxuma kër nante yi kër beneen bi. Euh, léegi dama dama gis dama dama am ku ma koy tooñee man ko man li ma comprendre wul léegi mooy. <laughs> Eh. Euh, léegi waa APR soxlaatul ñuy dem ci euh, plateau yooyu. Mhm. maanaam parce que ñoom ñoo fay défendre régime Macky Sall wala boog itam bilan wu Macky Sall. Mhm. mandat wu Macky Sall. ñoom ñoo koy défendre. maanaam ñi nga xam ne démb ak bërki démb ñoom ñoo doon ànd ak seen leader di contre Macky ci ni mu fi nekkee ci di di di ko di wër di tibb tànkam maanaam léegi contre nga ñi fi nekk ba tax léegi ngay tagg Macky Sall bi nga xamante ni lu ne xas nga ko fi. Mm-hmm. te bàyyil xel li ma lay wax nii. plateau de Sen TV. Mm. jamono bi jamono bi mm. avocat wu avocat wu Ba wala boog itam avocat wu régime Macky mm. jamono bii mooy ñiy toog ci plateau Sen TV. chroniqueurs yi nekk seen TV. Mhm. te pourtant moo ne démb ak barki démb yaa doon toog di attaqué wala boog itam di tiire ci kaw Macky Sall que ne ni mu baaxul. Mhm. te tey moom nga ñuy jox référence moom nga ñuy jox exemple. ci rek maanaam ñi toog tey nii neexuñu ma bëgguma leen. jàpp naa ne gis-gis yooyu. Uh-huh. Euh, bon du ñu wax kenn ni muy gisee wala boog itam ni muy xalaatee. Uh-huh. mais dafa war a dépasser ci li nga xam ne. ñun mooy suñu mooy suñu mooy suñu langue politique bi. xam ne uh-huh. Sénégalais yi fi toll weesu na foofu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Sénégalais yi li nga wax démb xam nañ ko li nga wax tey xam nañ ko. dinañ def comparaison bi xam nañu sa gëm-gëmu démb yaa ngi ci tey wala déet. lan moo la ci génnee amaana mooy doon question bi. yow ci sa bopp nag bu dee toujours. li la génnee ci mbir mi nga xamante ni yaa ngi yaa ngi ci woon mënoo ko mhm. wax jàpp naa ne soxlawul ngay kaas waxtu wu nekk te pourtant barki démb ak barkaar démb mhm. lañ doon dégg mooy anti système anti système mhm. mais tey li ma leen wax nii bàyyi ci xel bu baax a baax a baax baax baax plateau yooyu jamono bii la ñuy défendre midi suba ak ngoon mooy bilan Macky Sall bi nga xamante ni toujours ñoom dañ ko doon xas di ko ngaañ alors Euh, ci ci ci benn point bu ñuy bu ñuy waxtaanee comme fi nga ko daanalee mu nekk lu am solo mooy société civile bi jóg tey ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci journal bii di Les Échos euh, ñoom nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi fàttali kii di président Bassirou Diomaye Faye ay engagement am naan ko na nga respecté li nga xam ni moo tukkee ci dialogue national bu nu amaloon euh, pour rek nu defaraat li nga xam ne nag moo di assise bi maanaam li bàyyi ko ci assise ba nu appliqué ko ci li nga xam ne nag moo di ci réew mi waaye ñoom première question bu nu posé mooy lan moo tax président Diomaye def fi li nga xam ne nag moo di 100 jours te tontuwul euh, correspondant bi nga xam ni jébbaloon nañ ko ko xam naa ñàkkul woon ni demande d'audience la woon alors nan nga mën jàngatee euh, li société civile bi di sàkku si président Diomaye. bon du ñoom rek la ko defalul bu dee ne bu dee ne